a kanuk euh, murit yëpp ci nji ci bopp ba xalif général des murit euh, ja jaale euh, ñi nga xamante ni ñoo di julliti ci wàccub liggéeyu Serigne atu Atou Diagne jiite woon is bu tarxiya sànq la ñu jot xibaar bi ci kanam tuuti daañ ci waxtaan ak ustaas yi daañ ci dellu siwaat it ak ay seede ci suñu édit